الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جنابي صنت برم سبحانه وتعالى جلتي ci صلى الله عليه وآله وسلم نجدين سنباب sallam ñu رجل برم سبحانه وتعالى ak bàyyi xel doxalin yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam si diine ji moo xam suñuy wax la suñuy pas-pas wala suñu mboolee mi jëf mbokk yi borom bi subhaanahu wa taala moo bind mbindee fii te bàyyiwu leen ak seeni bopp bàyyiwu leen ak seeni xalaatin pour ñu dem ci seen wàllu diine seetaanu leen ñuy tëñëx tëñëx waaye borom subhaanahu wa taala ginnaaw ñetti miisaaq ñetti kóllëre yi nga xamante ne suñu nañ ko ak borom subhaanahu wa taala yàlla matal basam wàcceel ñu ay yonent wàcceel ñu ay téere ngir ñu xam fan la ñuy teg suñu tànk xam nan la ñuy jaamoo borom bi subhaanahu wa taala waaye it borom subhaanahu wa taala defal ñu benn natt mooy dund bi nga xamante ne moom la ñuy dund dañoo ànd ak ak noon te bi ci gën a rëy moom mooy seytaan seytaane ne jaamu yàlla borom subhaanahu wa taala bu ko doon jaamu ba am yenn daraja jàppane kenn gënu ko waaye mu mooy borom subhaanahu wa taala yàlla wàccee ko fi gën a suufe waaye wàcc boobu mu wàcc torox boobu mu torox bëggu cee wéet da cee bëgg a yóbbu ay mbindeef yu baree bari moo tax mu leen di dikkee fu nekk moo tax borom subhaanahu wa taala ci wàll woowu it bàyyee ak suñuy xel bàyyee yit ak li nga xamante ne moom mooy suñu xalaatin waaye yàlla boroom subhaanahu wa taala daf ñoo wutal ay yoon wutal ñu ay wax wutal ñu ay jëf yoo xam ne buñ ci taxawee dinañ mucc ci seytaane boobu ndax pexeem pexe la yoo xam ne yuy naxsaay lay doon comme ni ko borom subhanahu wa taala waxee ci la borom subhanahu wa taala wàccee alquran def ko mu nekk njub waaye mu nekk saafara ci mboole mu feebar yi moo xam feebaru yaram yi la wala feebaru xol yi waaye it mu def ci ay aaya yoo xam ne nit ki bu fekkente ne mu ngi taxoo ak aaya yooyu mën naa nekk sabab borom bi subhanahu wa taala soril ko cheytaan bokk na ci aaya yooyu di ayatul kursi mu nekk aaya boo xam ne dafa fees dell ak tawxid ndax yàlla subhanahu wa taala mu ngi koy commencé allahu la ilaha illa hu mu ne ki ngeen di jaamu di allah la ilaha illa hu amul kenn wala lenn lu ñuy jaamu ci dëgg ku dul moom borom subhanahu wa taala al qayyum al alxayu mooy ki dund dund goo xam ne amul fu mu tàmbale amul fu mu yem al qayyum mooy ki nga xamante ni lim bëgg def moom moo koy defal boppam waaye mbindee fi li ñu soxla moom borom subhanahu wa taala moom moo koy defar du gémmentu di nelaw ndax loolu melokaanu manqué la mbindee fi ñoom ñoo ko moom lahu ma fi samawati wa ma fi l ard mu nekk tawxidu rububiya moom mooy moom mooy ki moom asamaan ak suuf ak li nekk seen diggante man dha alladi yashfau indahu illa bi idni amul kenn koo xam ne di nga ràmm ëllëg lu dul ci ndigalu borom bi subhanahu wa taala te wa qaala sawaaba te booy ramm it da ngay ramm solo li nga xamante ne noonu la ko borom bi subhanahu wa taala bëggee moom moo xam lu jiitu moom moo xam li teew waaye moom moo xam li ñëw ëllëg amul kenn koo xam ne dina peeg xam-xamu borom bi subhanahu wa taala lu dul yàlla jël ci tuuti xamal la ko te loolu yonent yi la koy xamal وسيع كرسيه السماوات والارض كرسي بيغا خامتاني موم لا بيند تي توغو تي نдах موي فون بلا موي بيند كرسي كرسي جامم لا كوم ني نك جامو ورم سبحانه وتعالى دافكا سوب مو بيند كو نينا كرسي بوبو شيز بوبو مو غنا ياتو بو بوله وون اسمان اك سوف اك لي نك سين سين بير ولا يؤوده حفظهما تي ar bi nga xamante ne moom lay aar ak suuf amul amu ci benn coono wa huwa al aliyul azim mooy ki màgg ki kawe mbokk yi ayatul kursi dafa am ay ngëneel yu bari ngëneel yooyu nag li ko may mooy ne aaye aaye bi dafa boole usulil asmail husna وصفات الكلام كمال دا فا بوله تورو برام سبحانه وتعالى اي رفت رافيت وايه مو داجال سي ايه يويو ميركان برام سبحانه وتعالى اي گن مات اي گن ماگ مجي xamne mu ngi aju ci wetal biñu wara wetal yalla borom subhanahu wa ta'ala ak wane dund borom bi subhaanahu wa taala mi nga xamante ne amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem ne lépp loo xam ne ñu ngi koy def ci àdduna moo koy def moom borom bi subhaanahu wa taala xam-xamam moo peeg lépp moom mooy ki moom nguur moom mooy ki am kàttan nammeel def ay mbir wala ñàkk koo def moom mooy ki nga xamante ni moom moom dong moom moo ko am moom mooy ki kawe moom mooy ki rëy moom mooy ki màgg ci jëmmam ci ay melokaanam ak ci ay jëfam mu bokk nag ci ngëneelu ayatul kursi ne ayatul kursi mooy aaya bi gën a màgg ci biir alquran ubay ibnu kaab radiallahu anhu mu ne benn bés yonente bi alayhi salatu wasalaam daf ma ne ma yaa abal mundir loolu dàkkantal la ci ubay ibnu kaab mu ne ko ci aaya yi nga mokkal xam nga ci ban aaya mooy bi gën a rëy mu ne ko allahu wa rasuluhu alam ubay loolu la wax yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amaana sax xam na ko waaye ñoom ci seen yar ci seen teggin duñu jéem a jiitu yonante bi alayhi salaatu wasalaam bu ñu xamee sax dañu naan xamuñu ngir bëgg a jàng ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam ko allahu wa rasuluhu alam yonante bi insisté mu bëgg a mu bëgg nag mu xam ne nag yonante bi alayhi salaatu wasalaam dafa bëgg moom mu tontu mu doog a tontu mu ne ko allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayum aaya boobu mooy bi gën a màgg ci alquran yonente bi alayhi salatu salaam ndokkel ko ne ko wallahi maa ngi génn ci borom subhanahu wa taala li yahnika al ilma abal mundir maa ngi lay ndokkeel ci xam-xam bu rëy bii nga am yàlla na ko borom subhanahu wa taala barkeel yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam di wane na it ayatul kursi li ñuy tudde ismullahi al azam turu yàlla yi gën a màgg ayatul kursi ca la mu ne ismullahi al azam turu yàlla bi gën a màgg mu ne fii suwarin min al qurani thalathun mu ne mu ngi ci biir alquran ci ñetti saar mu ngi ci suratul baqara mu ngi ci al imran mu ngi ci taaha xadis bu wér la alqasim ibn abdurahman mu ne ma ñëw di càmbar alquran pour xool tur woowu fan la nekk ndeke bi ma ko xoolee ci suratul baqara maa ngi ko fekk ci ayatul kursi yi fi borom subhanahu wa taala di wax ne allahu la ilaha illa huwa alxayu alqayum ma ñëw ci ali imran fekk moom la moom la saar bi tàmbalee allahu la ilaha illa huwa alxayu alqayum wa fi ali imran fatihatuha mu ne ma ñëw ci taaha fekk ne aaya ba mooy waanatil wujuhu للحي القيوم كون لول اسم الله الاعظم واي مبوك جوليل ميغا خامني لي نتي اسم الله الاعظم دو بن دو نيار دو نيت لو بري لا ني بري تي جوليت نيت خام نان كو دو تياغن يالا بروم سبحانه وتعالى داف كار سكر جوكو اي نيت لول امول فن يرنبي صلى الله عليه واله وسلم بن بس دغونا تي جاك جي دغ كين تي صحابه ني اللهم اني اسالك بان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 loolu la ñu tuddee benn ci alwasila nga xam ne ñett la mu ne maa ngi lay ñaan ci ne man de dama gëm ne seede ne amul kenn wala lenn lu ñuy jaamu ci dëgg ko dul yow al ahadu samad yow yaay ki wéet ci sa nguur yow la ñëpp soxlaal te soxlaalool kenn dara juróo kenn kenn juru la amoo benn ndend yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne kii de ñaan na ci turu yàlla bu màgg bi mu tuddee ko ismullahi al azam bi nga xamante ne képp ku ko ñaan ci tur woowu yàlla subhanahu wa taala du la delloo neen waaye da koy nong turu allah it ci beneen circonstance yonente bi alayhi salatu salaam ne ismullahi al azam kon du benn du ñaar yu bëri la daanaka mooy mboolemu turu borom bi subhanahu wa taala ndax dafa aju ci jëmmi borom bi subhanahu wa taala kon du caage ay secret la yoo xam ne borom bi subhanahu wa taala dafa am ñu ngi koy dénk loolu wérut loolu amut mbokk yi bokk na ci ngeneelu ayatul kursi yi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne képp koo xam ne julli na julli farata ba pare jàng ko amul lenn luy dox sa diggante ak dugg aljanna lu dul nga faatu ci xadisu abu umamat albahili radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na man qara ayat al كيف كجانغ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة جناو جل فرط بريك لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت أم لن لي دخ دقن تمكتاب الجنة لدل لدل مفاق كون لو ري ري بقي أبو هريرة رضي الله عنه دفاي نتلي بأن خاو خاو بو خمنا دفا دخون دقن تمك بأن واي من يرانت بصلى الله عليه وآله وسلم دف ما دينك على الجلدني زكاة الفطر زكاة رمضان هي زكاة الفطر مي أسكا يمور مكور بلا بلا نهي أسكا لحتى رمضان يد دارن تجني أسكا ديجا خمن تنا مومي بني ورا جني تفرطا من يدما جكي جكي رك أم بين نواي بومديكر كما سدي جل تنيم بي nee na ma jàpp ko na ko dinaa la yóbbu ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ko jéggal ma dama am soxla dong dama am njaboot te dama am aaja bu tar ndax samay doom ñu may xaar te lekkuñu mu ne ma yërëm ko bàyyi ko bi ma xëyee yonante bi alayhi salaatu wasalaam ne ma ki nga jàpp woon démb fan nga mu jeg moom mu ne ah man de lii la ma wax ma jéggal ko mu ne la kàcce na te dina ñëwaat abu hurayra ma xam ne dina ñëwaat ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax nee na mu ñëwaat ñaareelu yoon mu defaat lim defoon ma jàpp ko ne ko dinaa la yóbbu ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ko dama am aajo bu rëy samay njaboot dañoo xiif lekkuñu mu ne ma yërëm ko bàyyi ko ma ñëwaat ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam yonente bi ne ma alayhi salaatu wasalaam ki nga jàppoon démb fan nga mujj ak moom mu ne ma wax ko li ma ko waxoon mu ne ko kàcc na te dina ñëwaat mu ni ma toog mu ñëwaat ñetteelu yoon mu sàccaat ma jàpp ko ma ne ko dinaa la yóbbu ci yonante bi alayhi salatu wasalaam mu ne ko bàyyi ma xanaa doo ñëw ma jàngal la lenn loo xam ne boo ko waxee dara du la mënal dara mu ne ko lu mu ne ko del jàng allahu la ilaha illa huwa alxayu alqayum saa yooyu demee ba di tëddi nekk sa kaw lal nee na boo jàngee aaya ba fi mu tàmbalee ba fi mu yem doo dañ borom bi subhanahu wa taala di la wattu ba saa yoo xëyee mu ne ma bàyyi ko mu dem kii nettali xadis bi ne te saxaaba yi kenn gënu leen woon bëgg yiw yiw bi moom moo tax mu bàyyi waa jooju mu ñëwaat ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam mu ne fan nga mujje ak sa prisonnier ba mu ne ah moom de nee na ma naa ko baal mu jàngal ma benn mbir moo xam ne daf may aar yonente bi alayhi salatu salaam nag abu xare loolu mooy lan mu ne nee na saa yu may tëdd naa jàng allahu la ilaha illa hu alxayu alqayum bu ma ko jàngee cheytaana du ma mënal dara lenn du ma mënal dara ba saa yu ma xëyee mu ne ko wax na la dëgg wax na dëgg waaye wa huwa kadub fenkat bu mag la bés bu nekk dafay fen waaye li mu wax dëgg la mbokk yi kooku iblis la seytaane la yéefar la waaye mu xam njëriñu allahu la ilaha illa hu alxayu alqayim xool yéefar boobu lu mu saxal ci aaya boobu tawxid tawxid la saxal ab yéefar la waaye tawxid la saxal ñu ne abu hurayra aaya bii boo ko jàngee dara du la mënal dara yàlla subhaanahu wa taala moo lay wattu yàlla wax woo ko aaya bi moo koy wattu de waaye yàlla moo lay wattu doo dañ boroom subhaanahu wa taala di la wattu mbokk yi ana jullit ñi ci aaya bi kon bu ñu gam-gamlee dañu naan kon iblis ñu bëree bëri ci jullit ñi moo leen gën a xam njëriñ yi nga xamante ne moom ci aaya bi te loolu nag gàcce la ci jullit kon war na la yow jullit bi jàng alquran donte mënoo ko mokkal nga mokkal la ci bari xam li ci nekk rawatina aaya yu mel nii nga xam ne njëriñ la lay indil njëriñ ci ni ngay wéetalee borom bi subhaanahu wa taala waaye mu indil la njëriñ ci li nga xamante ne moom mooy ci sa dundin ci sa dund ci faj la ci aar la ci defar li nga xamante ne moom mooy moom mooy sa xol yonente bi sallallahu alayhi wa ne أبو هريرة تعلم من تخاطب من ثلاث ليال اسك خمغا كيما دان وخال نيتي غود يي وا يسو أبو هريرة نكو ديدت منكو ذاك الشيطان إبليس مو نيوان تي يو كون جامون يمو نيو ييت بروم سبحانه وتعالى مو كاي وحيو يونت بي صلى الله عليه واله وسلم تي بنين رواية أبو أبي بن كعب رضي الله عنه يونت بي صلى الله عليه واله وسلم من قالها حين يمسي ujira minha xatta tasbih képp koo xam ne jàng na ko ci ngoon nee na dinañ ko aar ngir aaya aaya boobu ba saa yuy ba saa yu xëyee képp koo xam ne xëy na jàng ko yàlla subhaanahu wa subhaanahu wa taala aar ko ba saa yu saa yu gontoon kon mbokk yi niñ ko waxee ci njëlbeen borom bi subhaanahu wa taala bàyyiwuñu ak suñu bopp bàyyiwuñu suñu bakkan rek ci ni bu ñu bëggee lu ñuy aar ñuy dellu ci loo xam ne bokkaale borom bi subhaanahu wa taala la moo xam ci ay tuur la moo xam ci ay xàmb la moo xam ci leneen loolu caddo la loolu kéefër la li nga xamante ne moom mooy lu baax mooy wéetal borom bi subhaanahu wa taala méngoog njàngale yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay ñaan ci ay aaya yooyu jàng te aayatul kursi ci la bokk buñ ko sàggane nañ ci góorgóorlu dañ ci jëlee ay meññeef yu bëree bëri li ci jiitu mooy ñu ngi ciy jaamu borom bi subhaanahu wa taala ñu ngi ciy wéetal borom bi subhaanahu wa taala waaye ñu ngi ciy jël njëriñ ci li nga xamante ne moom mooy suñuy wér-gu-yaram waaye li nga xamante ne moom moo ñuy aar fii ci àdduna bala ñuy jeexal mbokk yi ñu fàttali loo xam ne it dafa bokk ci ay règle ay règlement yoo xam ne war nañ ci bàyyi xel ñu ngi fàttaliku ci jëmmi jamono waxoon nañ ne niñ doon jullee di sore nañ ko bàyyi léegi nañ taqaloo waaye bés biñ ko doon wax it waxoon nañ ne masque yi kenn bàyyiwu ko waaye xooloon nañ ne ñu bëree bëri dañ ko sàggane te loolu nag ab gàkk-gàkk la ci suñu jikko ndax suñuy njiit dañ leen war a topp ci loo xam ne mooy yàlla nekku ci loolu principe la ci principe bu ahlu sunna wal sa njiit bu nekkee jullit moo xam mu ngi àtte sharia wala àttewul sharia mu jox la ay santaane jox la ay ndigal te juyewut ak principe bu sharia mooy yàlla nekku ci bokkaale yàlla nekku ci faratala ci yow nga topp ko rawatina nag bu fekkente ne it suñuy borom xam-xam dañ ñoo jox orientation yu mel noonu ci jàkk ja nag dañoo renouveler orientation bu mel noonu mooy nañ góor góorlu bu ñuy julli si ñu sol suñuy masque xam ngeen jamono yit fi ñu toll mbir maa ngi commencé waat kon nañu fegu aar suñu bopp aar ñi nga xamante ne suñu dëkkandoo lañ ci kër yi ci jumaa yi ci jàkk yi ci marché yeeg ci mbedd yi nañ ci góor bu baax a baax dafa it dafa it am façon boo xam ne noonu lañu ñu war a takkee masque yi ni ko waa kër docteur waxee boo takkee masque fexeel ba gémmiñ gi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 فاستغفروه إنه كان غفارا